dégguma la de fukki neen ak juróom. fukki neen ak juróom 15. quinze waaw. asalaamaaleykum <laughs> waa Sénégal waa àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am kontaante bu baax a baax si li nga xamante ne moom mooy seen émission bu bees tàq bi nga xamante ne moom mooy mun na nekk wala munu nekk si seen premier numéro ah ma ànd ak ki nga xamante ne nag moom mooy sama doomu ndey am. ah maa ngi nii salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waa Jamm Ji Infos maa ngi nuyu ñëpp. di wax ne nag te dañu am concept bu bees tàq bu tudd mën na nekk wala mënul nekk. Mhm. ak sunu waajoo xam ne Omar Vandam lañ koy wooyee. Mhm. waaw te di di la di la wax ne nag waaju doy waar la. Mhm. waaju nag wax dëgg yàlla wax na lu ma yéem lool. nee na moom moom mën na lekk lu mat quinze nen ba vingt nen te man yéem na ma lool nag. te man mosumaa gis ku lekk juróomi nen waxuma laa ay dix ak quinze mbir mi nag yéem na ma torop ma ne nag sa waay ah comme setu bees bi loo ci wax. waaw léegi xam nga lan la def léegi. ñu fas yéene na ànd ak ki nga xamante ne moom mooy sunu man ñu xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais ñu xool est-ce que loo mun na nag wala munu nekk kon soo paree ñu dem. waaw ah, acca boog nañ dawal. saa yi nuyu naa la. oui fay naa la ko. tur bi naka la. man la Picco. ah sa waay ñun daal dañoo am benn concept bu bees bu tudd mën a nekk ak mënul nekk dañoo gis benn waaju ju yéeme. nee na moom daal mën na lekk fukki nen ba fukki nen ak juróom. te nag mbir mi yéem na ma trop moo tax ma ne xaaral ma génn laaj sénégalais lu ñu ci wax. non man comprendre ma waxal ma déggaat. mais waa ji daal nee na mën na lekk fukki nen ba fukki nen ak juróom. ah waaw mais sama waajee champion la ah. non man moom dama bëgg nen quoi wax dëgg yàlla bañ na. ah yow da nga bëgg nen. waaw ah démb démb combat Zarko bi. waaw dama dam forfa uh, huit nen. waaw waaye huit nen yi. Ah. tey laa ko commencé lekk waaye benn laa si dese. tey jii nii. waaw waaye. ah soo waay lu ne si saak bi. ku nen ak juróom moom wax dëgg yàlla mënu ma ko lekk mu ngi nii. est que. combat bi ci combat bi. ah, ah sa li nga wanee ni yéeme na di. non kooku kooku ñu xool ko. yow da ngay doxantoog ay nen. ma yëmbal si affaire bi. mais man damaa gis ni instant bi loolu moom munu nekk moom man munu ma gëm ne waa ji mun na lekk loolu. waaw non ko lekk munu ko lekk. man lekk sa waay yaa ngi saa xam ne. non man dama bëgg nan waaw waaw comme ni ngeen ko gisee. comme instant bi kii tamit moom tamit wax na loolu. Mm-hmm. ñu fas yéene nag daal rek dem xoolaat. keneen kooku faaw ngeen wan ma xool man faaw ma gis ko ko bëgg a gis. non foog ngeen présenté ko parce que am na la. nen. ah kon nag ñoo ko déggandoo. waaw ñu ngi dem seeti keneen. loo ci wax sama waay. waaw comme ni ñu ko gisee rek ñu fas yéene daal di dugg si ruq ruqaat rek. Mhm. daal di seet keneen rek ñu xool affaire bi fan yu mujj. arawaa ñu dem. sama waay ji nuyu naa la. ñu ngi lay a baax yow sama. ñuy delloo ziar wér a wér a sama waay dañu am benn concept bu tudd mën a nekk ak mënul nekk dañu am benn waay joo xam ne Omar Vandam lañ koy wooyee moom waaw moom nee na mën na dóor fukki nen ak juróom gis naa ku lekk benn nen ñaari nen ba ñetti nen waaye moom nee na mën na lekk fukk ak juróom loo ci xam. ah waaw loolu moom lu mën a nekk la moom fukki nen ak juróom. waaw fukki nen ak juróom. jëli loo wax. xanaa xamoo kii nii. waaw sama waay la xam naa ko bu yàgg. ah gis nga kii nii. waaw macha allah fa tabaarikallah pour su la yuuxalee ah nga xam ne kii ndaanaan la mën na nekk nu mu wax noonu loolu mën na nekk. maa ngi tuuti à Diakhar Mbaye. waaw Diakhar waaw mën ñu tuuti rek après ñu egg la émission bi. Oh, oh. oh, nga ne ma ah, ah sa waay kontaan naa lii am na solo waaye concept bi loo ci wax man na nekk wala mënul nekk. mën na nekk moom mën na nekk si kaw mu am poobar. ah ci kaw mu am poobar. mën na nekk bu manqué poobar. mun na ne mais xam ma yàgg mais man li sama problème maanaam lan maanaam zone zone bi. zone bi. loolu mhm. la jaaxal ci zone bi. Ah, <laughs> ah loolu yéeme la de. ci zone <laughs> ah kontaan nañu bu baax a baax yooyu yàlla la yàlla am comme ni ko waxee rek fu ñu war a yëg tey jotaay bi waxtu bi jot na ñu daal di jox ñi nga xam ne ñoom waaw sama waa ji bu leen fàtte nag concept bu bees bi mën na nekk wala mënul nekk ñu ngi ci arawa nañ dem waaw mais sénégalais yi ah waa ji daal nee na mën na nekk ak mënul nekk jëli faama loo ci wax. waa léegi comme ñëpp nee nañ mun na nekk ñii nee na munu nekk comme boobaa ñu fas yéene na ànd suñu caméraman dem seeti Omar Vandam ñu xool na moom est-ce que nu mu wax mun na ko wala munu ko ndax sénégalais ñu ngi ñuy seetaan ko ñu fas yéene ànd suñu caméraman daal di dem seeti Omar Vandam. a ah, sa Omar Vandam nag tey moom dina ngeen ko gis bu soobee yàlla nañ dem seeti ko xool ndax mën na nekk ab munul nekk ak concept bu bees bi sabon salaamaaleykum Omar ñoo ngi leen nuyu di la siyaar di la bégee di la wax ne nag dañu suñu concept bees bi kontaan nañ trop ci bokk giñ ci bokk waaw di la jëli faama waaw loo wax ci mbir mi ah macha allahu fa tabarakallahu damay faral di ne yéen ñi nga xamante ne yéene seetaan mhm. affaire yi du gént de mhm. affaire yi lu am la mhm. Omar Ba Ndam mi ngi nii uh-huh. sénégalais yëpp ñi ngi ñuy seetaan uh-huh. ñu fas yéene nag li nga xam ne moom mooy nen gi uh-huh. mu lekk ko ñëpp ñi ngi ñuy xaar kon Omar yaa si des. Mm-hmm. ah dama bëggoon xam nag ñaata nombre de nen la ndax euh, ñu ngi doon wax dix ba quinze. Mm-hmm. waaye li ma fi gis nii daa mel ni xaw naa bari. Omar ñu nuyu nañ la. waaye maa ngi di fay macha allah parce que vraiment li may wax dëgg la. Mm-hmm. te aussi dama koy jëfee bu soobee yàlla. incha allah lépp lu ma leen wax rek. waaw tegal ko si taabal ji bu soobee koy dóor. waaw mais Omar lii bari na de mbaa ko mën a lekk. incha allah bu soobee yàlla dama koy dóor bu bu ngeen bëggee sax ma dóor yàlla xotti ko ah lii de yéen a faama loo wax. ah affaire bi yéem na man daal instant bi xam lan la ñu war a def léegi nag nañ jublu si liggéey bi nen yaa ngi nii na jëfe ñëpp gis. bisimilah. waa mais Omar léegi nag dama buggoon xam ñaata nen a nekk fii ci plateau bi jëli faa ma konteel moo ma xool. ah su ma ko compté ñëpp dinañ kontaan. acca boog ñu dem. benn benn mi ngi ni benn. benn li nga xam ne waa jëli faa ma na gaaw. ñaar waaw. ñett waaw. ñeent waaw. juróom waaw. juróom benn waaw juróom benn juróom ñaar juróom ñaar ay mbay juróom ñaar juróom ñeent ñett fukk ak benn fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak ñeent fukk ak juróom ah fukk ak juróom ëpp na li ma waxoon a ngi nii nag ah fukki nen laaj juróom Omar nag ngi lay seetaan Sénégal réew mi yëpp a ngi lay seetaan mbir maa ngi. te man macha allah lu ma leen wax daal bu soob yàlla dama koy dama koy jëf. waaw xaaral ma tojjoo ko parce que mën naa ko. Hmm? vraiment mën naa ko ah te du ma wax di maanaam di wax naa mënu ma ko non loolu du moom vraiment du ma kii. sama gars yi lii fii lay xewee waaw mën naa ko dama koy jëfee waaw. sama gars yi fii lii li fii lay xewee ak waa jàmm ji info hmm. lépp li nëbbu woon ñoo koy feeñal. télé bu mag baa ngi noonu site bu mag baa ngi noonu kenn du ñoom. Hmm. waaw sama yaa ngi commencé xool di. waaw man damaa yàkkamti man damaa yàkkamti na nee naa leen lii moom moo loolu foo mu def ko gaay bi gis ko waaw. ah kon nag nañ dem kon nag sama waa ji man ngaa tàmbali. bisimilah waaw. nañ ko. Hmm? saa looy laaj ndox. non non la fii mooy mooy jàllale. ah waaw. yaa ko waxoon de. ah ku wax moom da ngay jëfee moom. Mhm. ku wax moom. da ngay jëfee rek. waaw gor si kaddu ga rek. te man nee naa la munu ko yow nga ne mun na ko. ah sénégalais ñu ngi seet. ah am na ñu ne mën na nekk. Mm-hmm. am na munul nekk. am na ñu ne munul nekk. man bala maa gëm mu def ko. Mm-hmm. am na ku fi waxoon ne boo amee poobar de mën na koo lekk. xaw ma nag. jëli faama yaa ngi xooli ba tey. maa ngi xooli maa ngi si xooli ba léegi. moom dafa dafa xaw a gaaw gaaw sax. ah weddi gis bokku ci de.

Omar Omar <laughs> Omar Ba. Omar hmm? dafa ah, Omar Omar Omar Omar daa ndox lay laaj de. Omar daa mel ndox lay laaj de. comme wax waaw waaw waaw waaw. kon lekkal waaw d'accord. Hmm. Hmm. Thierry Fama ñaata ëf nga fi gis ñaata ëf. la ilaha illallah ay waa l'histoire retiendra loolu la ñu wax de ñaata la fi gis. 1 de 3 4 5 6 7. ana ñu ne woon mënul nekk. ah man maa ne woon mënul nekk de mais mun moo ko gëm tant que mun moo ko gëm. ma ah sawaay man de li may gis nii xel dalagum na de. ah daa mel ni mbir mi jaxasoo na de. daa mel ni mut na de. ah ñaataa ci des jëli faama. benn ñaar ñett juróom juróom benn. lii de moo si des lii de ku ma ko waxoon duma ko gëm. ndax 15 loon 6 moo si des. 6 6 moo si des. ndax quinze naan loon 6 moo si des. ay waay Sénégal ah, Sénégal xanaa joomi ngeen de. ah sa waa nu moo dafa mel ni mi ngi koy. ah gël na ko. lu ma mës gis ci réew mi. borom kanja rek a mën a maafe. nga ne ma. borom kanja mën maafe. borom engrais gerte kenn du ko si si maafe borom téere mun suuf kanja. laa ilaha illallah moom de talu li wax. Mm-hmm. waa kay waa kay ay la ay bamba laa ilaha illallah. ah jëli faama loo wax. ah man damaa joomi. lu la jommal. ah ndax sa waay nu mu wax ne instant bi moo loo moom lekk na xaaj bi yëpp. instant bi su ma juum. man de damaa gisatul ne ni. laa ilaha illallah mais eh, est-ce que luxusu ko. ah na ma de munu koo luxus nag lii moom munu koo luxus maa ngi fi toog di xool. Ah, munu maa ngi xool ni mais est-ce que luxusu ko. ah Omar Vandam. waaw dafa am lu may ñaan. waaw su may lekk. waaw bay leen mu pare. waaw d'accord. parce que bu ngeen waxee da nga mel kii quoi. waa kay xam nga may rek waa wala. waa kay. Hmm. ndox mu ñëw. doy na. pour indi ndox yoo tamit bàyyi rek. jaru koy indi ndox. bàyyi rek dama koo yërëm kat. non déedéet déedéet ko rek. bàyyi leen ko. waaw ndax 15 la waxoon. 15 lañ la waroon lekk. fu mu nekk nii instant bi ñetti nen moo si des. ñetti nen waaw jëli faama mbaa doo rey doomi jàmbur ji foo jëlee kii. ah doy daa waar rek kii moom la kii moom sunu lëf la. laa ilaha illallah. ñaata nga gis. laa ilaha illallah ñaar nen laa fi gis. 15 la woon lekk na 13 deux yi ñoo si des. ah. fii lay xewee ci jàmm ji info. Ah, jëli faama ana tablette yi. Ah, ana nen yi laa na ko de waxoon na ko de. nee na na gars yi def ndànk. Hmm. nee na na ñëpp def ndànk. Hmm. weddi gis bokku ci na ñëpp def ndànk. Hmm. jëli faama nen jeex na ah jëli faama waa ji nee na nen jeex na ana nen laa ilaha illallah lii ku ko waxoon duma ko gëm billaay walaay talaay man maa ne munu ko lekk ndeketoo lekk na ko lekk na quinze nen yi ah, man de jommi naa ci réew mi waa jàmm ji info lii lan jëli faama foo jëlee waa ji anamu fu mu nekk xool leen dara nekk fi xool lekk naa ba nga lekk na ko lekk ko lekk nga fukki nen ak juróom. man macha allah lekk naa ko lépp. ah jëli faam foo jëlee waaju doy waar ji. waa léegi xam nga lan moom a yëm man waa ji waa ji sama lépp la moom moo loolu. waa dama lay laaj dama lay laaj yow sa yow instant bii lii nii suur nga nii wala suñ la joxoon yeneen nen da nga koy naan. Ah, accord. Ah, laa ilaha illallah. ah d'accord dama ah sa waay nen yi jeex na de. nen yi jeex na waa man de jommi naa. man tey rek laa ah tey damaa lii la sa noo def ba lekk fukki nen ak juróom. am lii moo si gën a tuuti. lii ci gën a ndaw. wallaahi la ansi. deux kilo xoolal kilo mu ngi ko tegee fi mu ne ko tëf. nga ne lan ñetti kilo banaan mu ngi ko doon mooy mooy. non loolu moo eh, munu nekk. bii mun naa kaa nangu léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen seetaan nag danoo bëgg nag ñu teg suñu baaram beneen numéro nu mu wax ñu jéemoo xool mun na ko def wala mënu ko def bii moom def na ko mais bee moom du ma d'accord bii moom d'accord aussi dama lay wax benn affaire mm. lekk naa fukki neen ak juróomi mm. te bu soobee yàlla damay reer man te bu may reer wala téléphone la man damay reer sa waay lii dooyul reer dooyul mën nga lantiku ah. am na benn boolu bu may xaar ci kër gi pandaw est que boobu boobu dama koy dóor ah waa jaamu jëm foo ñëw ko gisandoo prochain épisode bi nag ñu nag moom lay doon ak ci leneen ak leneen ndax tey moom man tey moom dama kawo tey tey li ma gis musuma koo gis ci àddina te ku ma ko waxoon it du ma ko gëm fukki nen ak juróom lekk na ko bam seet tablet baa ngi nii ah man jommi naa kon nag prochain numéro incha allah ñu nag waa jàmm ji info léegi xaar leen ma jox leen sama waa ji jëli faama mu wax ak yéen ilaaha illallah man tey rek laa jommi lii ku ma ko waxoon man duma ko gëm comme boobaa nag ñu daal di tëj li nga xam ne moom mooy émission bi daal leen jox dog daje ba beneen numéro ñu jéem a xool nag ban la ñuy indiaat encore